Père Max ñu ngi lay tey ñu ñëw ci CNG bi euh, pour jël date euh, jot ngaa ñëw xam naa ne jot na am yoo xamante ne am nga ko gisee taxawaay. waa xam nga boo doonee ménager. Hmm. ba pare directeur technique. yore école de lutte. nga dëgmal saison yàlla def sot antuwul li lay gën a yitteel mooy nga xam ban dat la xale yi wala bërewaat pour ñu mën a continuer seen préparation hmm. mais Leewtoo it maa ko fi teewaloon Pape Thialis gis nañ ne combat Boy Niang Tapha Tine le 19 décembre lay doon bu ci yàlla àndee ci fii ci arène nationale le 19 décembre. Siteu moom it euh, combat am ak Papa Sow le cinq décembre. la war a doon fii ci arène nationale. Euh, bu dee Abu Ñaase suma juumul ci novembre bi lay bëree le 21 novembre. Coins le 28 novembre. waaye euh, na kuréel combat bi nga xamante ne le 24 juillet moo tëjoon saison bi nga xam ne fekkoon nañu def seen préparation ba pare. combat boobu le 10 octobre la war a doon. 10 octobre waaw mais yeneen date yëpp promoteurs yi jël nañu date yi. ñi ngi continuer jël mais doxalin bi am tey am na solo. Mm-hmm. dajale ñëpp ñu ne nañ dugg ci bureau yi nañ defaat yeneen i rencontre ñu ne mënta ne nañ toog fii bu ko defee kenn du ne. dañuy jàppale kii bàyyi kay kon euh, c'est à saluer dañ koy rafetlu di ñaan rek euh, activités yi continuer am na ci loo xam ne CNG mënu ko nag promoteur mënu ko mais état bi laay waxal nañu dédommagé mbër yi ndax lañ leen joxoon jeex na cas de force majeure la te secteur yëpp ñu ngi leen di jàppale ba mu des làmb toujours ma koy wax mais ba biñ ñëwee fii suma CNG sànni ci dara ay kàddu mbaam gàtt na mais ci jur gi la état bi na gën a joxaat cër làmb war nañ leen a dédommager mbër yi loolu daal laa am message bu may wax ndax préparé def lépp mbas mi dal ci réew mi kenn weddiwu ko mais nga ñëw rek ne leen reprendre te la nga yoroon rek financé ne ko te dafa mel ni état bi ba léegi déggul ñun fa ñuy waxee da bàyyi xel mbër yi ndax ci njaboot gi lañ bokk jërë ngeen jëf.